quelle que soit sa forme, n'est pas à encourager. Elle est à bannir. Et nous appelons l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités et sur ce cas précis, à identifier, traquer le responsable et le livrer à la justice. parce que am na yi nga xam ni comme je l'ai dit tout à l'heure nit mënu ci nekk di laam-laamee di ci am ay wax yu xaw woyof da nga ciy wax de façon extrêmement ferme Et aujourd'hui, j'interpelle l'État. J'interpelle le président de la République, Macky Sall, à prendre toutes ses responsabilités sur cette question. Quels que soient les auteurs, ou ils puissent se situer, ñu mën leen identifier traquer leen et livrer leen dans les meilleurs délais à la justice parce que am na xam ni il faut de très rapidement agir pour mu servir d'exemple ndaxte lii am tey mënoon na jur leneen heureusement yàlla ak baaxam génne na ko hôpital fa laa njëkk jaar hôpital militaire avant may yegsi fii yàlla ci baaxam teg na ci loxo mais mën na ñëwaat ci keneen te warul ñëwaat ci keneen moo tax il faut tout de suite prendre toutes les dispositions comme ni ma ko waxee ci tweet bi ma def pour identifier le responsable et le livrer à la justice ah, mais acte yu mel nii lan moo nekk derrière sa gis-gis empêcher nit kii mu def liggéeyam la liberté d'expression euh, est-ce qu'elle au Sénégal parce que dana na tey ci Maïmouna Ndour Faye mais daan na dal ñeneen dans le passé moo xam ay hommes politiques moo xam ay citoyens moo xam ay journalistes tey jii nii lii est-ce que mënul nekk loo xam ne xëy na dina décourager nit ñi ci seen liberté ci seen liggéey wala waru leen tënk benn yoon dañoo war a gën a persévérer ci li nekk. non mhm. que lii di tënk nit. ce la plus grosse ñu ko def loolu mu leen tax a jóg. parce que kuy def loolu intimider moo la tax a mhm. jóg. et nit. ci bin lay intimider ngay war a gën a wane sa fulaak sa dignité en tout cas moi c'est comme ça que je mm-hmm. par rapport à ma liberté d'exercice d'expression lu yàlla bindul nit mënu ci dara et ça c'est un mm-hmm. pense que quelle que soit l'agression et l'État doit prendre ses responsabilités pour mu bañ a am warul yóbbee nit ñu lay intimider lu yàlla sàkkul ci nit bul nangu nit teg la ko. ça c'est mon principe ouvertement publiquement je condamne toutes ces parce que nit di saigner ngay toog di ko féliciter mënul ne ak ku mu mën a doon nag mhm. parce que ci dëgg laay nekk ci dëgg lay mujjee mhm. faraluma kenn ci lu dul dëgg ànduma kenn ci lu dul dëgg c'est important ça c'est fondamental mhm. on ne peut voir ces images là qui choquent nit di ko ndamoo man mënuma ko ndamoo tous les jours on tire sur moi et je l'accepte mhm. et c'est comme ça que ça doit fonctionner et ce que je dis laam-laamewuma ci je dis de façon claire à l'État de prendre toutes ses responsabilités mhm. que l'auteur soit identifié traqué livré à la justice. Ah, une question peut-être liée mooy euh, li xew nii dafa am ci contexte boo xam ne le président Sall mi bëgg dugal une loi d'amnistie pour baal ñi nga xam ne laale nañu ci événement yi xewoon 2021 ak léegi. Euh, lii su ma ne ko dugal ci registre boobu maanaam Sénégalais yu bëri ils étaient pour que la justice se fasse ñu xam ñan ñoo def lan lu mel ni ñoo tegu ci est-ce que du wane un peu que ne le président il a tort de vouloir introduire une loi d'amnistie. voilà la la la loi d'amnistie ou pas je ne je je ne la ramène même pas ci nit ak ci raison ak ci tort. Mhm. ci principe de justice. laa ci waxee bi may exprimer wu dernièrement. Mhm. et j'ai de façon très très claire que je suis contre cette loi d'amnistie. je l'ai dit de façon claire je m'assume toujours dans ce que je dis. Mhm. pour la bonne et raison que yu mel ne njuume yi fi am deux mille vingt et deux mille vingt quatre am fi ay bakkan. rot ci ay blessé am ci ay dégâts matériels am ci xamaguñu sax kan mooy responsable bi identifier guñu leen ñu mhm. ñu dañuy faase lépp loi d'amnistie yi am yëpp en général la lumière est la vérité est mhm. et par la suite la réconciliation yóbbee nit nga def loi d'amnistie ou grâce mhm. parce que les instruments de pardon et de paix d'où simplement la loi d'amnistie au moment où les faits ne sont pas encore édifiés kenn xamagul li ci am donc moo tax de façon très claire au niveau de la coalition Déthié Fall 2024 dont je suis le candidat j'ai clairement dit que nous sommes cette loi d'amnistie. avant de vous libérer euh, ce qui vient de se passer ak contexte bi ñu nekk est-ce que du day wane que ne parce que bu ma juumul ñu bëri li ñu jàpp mooy euh, attaques yi dafa am ci koo xam ne dafay def liggéeyam xëy na neexul ñenn ñi euh, le pays fi mu toll nii est-ce que pare nañu pour jàll ci leneen pour tourner la page de tout ce qui s'est passé et qui continue di xew ba tey jamono ji je ne suis pas dans l'accusation mm-hmm. de qui que ce soit parce que tant que mbir yi amul mm-hmm. identifié wuñu ko mu doon mënoo doon ci accusation ce que je dis de façon très Et ça, j'interpelle l'État, tous ses services compétents en la matière, et le président de la République en premier lieu, de prendre les dispositions nécessaires pour que l'auteur soit identifié ouais. et qu'il soit livré à la justice. L'ivoire prévu par la loi, nous appliquer que en toute sa, dans toute sa rigueur sur cette question précise. Merci Maintenant, li am ba am, bu leen kenn mhm. bu leen kenn xokkatal. gëm leen yàlla et fet votre boulot. merci je vous conseille ce que j'ai fait. Mm-hmm. amul nit ku ma mën xoqatal lu dul jógee suñu borom. gëm yàlla wóolu yàlla day tàmbali ci loolu. gëm sa bopp xam li nga war a def boo ko waree def nga def ko. merci beaucoup et c'est le conseil que je vous donne. koy wax et encore une fois. Mm-hmm. di ñaanal suñu sœur bi yàlla yëkkati ko ak jàmm. Mm-hmm. yàlla def saafara ci li nga xam ni moo dal ci moom tey et di ko témoigner. toute not solidarité di leen témoigner notre solidarité. ak tous les professionnels du métier. Merci beaucoup.